mbokk yi asalaamaaleykum dama xëy dugg ci internet bi gis ñuy titre gàmm bi ñu defoon kër Aziz Ndiaye am ñuy wax ni li xew kër Aziz Ndiaye diine de gala la wala soirée de gala wala lu fa xew ma di leen xamal ni kër Aziz Bercy moo fa xewoon Bercy 2024 moom ngeen di jël moo gën a rëy ay dîner de gala ak ay soirée de gala loolu dafa tuuti gàmm nañ ko ci jàmm yàlla nañ ko fekkee déwén. ñaanal Abdou Aziz Ndiaye mi nga xam ni bi gàmm desee ñetti fan teg na ñetti camion def ci ay saaku ceeb séddale ko néew ji doole yi ñi nga xamante ni bii itam seen gàmm gannaaw yàlla ci moom lañ ko yaakaare woon ndax teraanga yi muy séq ak ñoom yàlla na ko gën a mën man nag ñëwuma fi pour tontul Aziz parce que am na làmmiñ am na gémmiñam su bëggee tontu na génn tontu mais man sama part man moo Modou Fall lépp loo xam ne nit critiqué critiqué na ma ko ci gàmmu Aziz Ndiaye bii man dama part tey budon suba ma defat ko bu def bu xewaton gannaaw suba la même chose fi ak 10 ans bu nu yàlla maye fekke tal virgule du changer ci ni nuy gàmmoo wax la len yàlla sédde ak xol bu bon ci ngeen di de yalla ko waxon yonent bi waxal ñila bañ mutu bi ghaizikum nañ de mais du tee yaay yonent bi insha allah rabbi at mu jot ni lay demé luma way wax man nak 13h budé ko siw nga dina la tontu bala 22h di nga jot sa réponse yàlla na nu yàlla may fekkeek tal ñu gàmm ko at yu baree baree bari mais ma rappelé leen ni leen man Modou Fall maa tey li ma def asalaamaaleykum wa rahmatullah